ah da nga doon nelaw. non non dama nekkoon plateau TV léegi laa pare. ah dëgg la kay maa ngi nekkoon en yaa ngi waat en direct ci biir Sénégal nuyool ak ñi lay seetaan. ok bisimilah soxna si. maa ngi ziar euh, waa Sénégal yëpp ziar population sénégalaise bi di ziar ñëpp di ziar adduna bi parce que Sénégal moom c'est une cité boo xam ne c'est très suivi dans le monde. Mhm. Mm. merci beaucoup alors monsieur Sow ñuy fàttali ne conseil spécial nga bu président de la république Macky Sall. Ah, lu jëm mm. ci wàllum euh, Covid 19 jamono jamono ji nga xam ne Sénégal moom lay jànkonteel nu ngeen koy dundee. waaw waaw xam nga dundin bu métti rek parce que tey bu ñu xoolee tey on a 35 cas positifs dont 34 yoo xamante ne contact suivi ak cas communautaire yoo xam ne ñu ngi ñuy sonal. donc je pense que tey vraiment coono la te cay coono àdduna bi la au niveau du Sénégal surtout avec yi aussi tamit di Euh, ñaaxaat nit ñi rek nañu respecter les les mesures barrières jéem a aussi tamit les décisions yoo xam ne état bi jël na ko surtout tey dans le port de masque obligatoire dans certains milieux couvre-feu yi ak yeneen ak yeneen yoo xamante tey dans nos vieux habitudes yi xaw ko respecter ba mën a jàll période bi. Mhm. lu jëmit ci wàllum euh, distribution de denrées alimentaires yooyee amoon na lool ay coow yoo xam ne am na ci bokk nga ci ñiy conseiller njiitu réew mi ban liggéey nga ci def. soxna si man gisuma ci coow ah, parce que man coow bu may gis mooy xam nga il faut tamit aussi tamit nit ñi xam ne ñi aussi tamit di wax aussi tamit lu mu demee. Mm-hmm. parce que tamit xam nga tamit bu ñu jëlee mille milliards état dafa jël bu problème amee état dafa jël mille milliards. ci biir mille milliards mu jël 64 milliards 4 mu ne daf ko daf koy jégle wàllu santé bi xeex Covid 19. mu jël 15 milliards 500 yoo xam ne da ko jël fay fay ci courant bi pour pour 975 mille 522 ménages. ñu jëlaat 3 milliards fay ci muy tranche sociale bi. Mm-hmm. ñu jël soixante deux soixante neuf milliards pour jéem ko dund bi je pense que boobu problème warta mën a nekk lépp euh, te déjà comme ni ko waxee je pense que le ministre en charge waxal na ci mais dañ ciy ñëwaat rek leeral mooy lan mooy coow coow scandale mooy lan est-ce que dañoo def ay fausse facture wala ku ñu jaay ceeb bi ci appel d'offre bi ci ku ñu jaay ceeb bi moo prix bi bu mu proposé ñoo moo gën a cher wala qu'est-ce qu'il y a je mm-hmm. que tey déjà boo xoolee tey at euh, euh, boo ne tey. tey ci état d'urgence bu ñu nekk article soixante-seize bu ñu nekkoon ci état article soixante-seize code marché public may na tey Mansour Faye mu def entente directe ci marché bi muy lan muy urgence impérieuse circonstance imprévisible tey bu ñu xoolee tey covid 19 tey euh, doxee dund urgence la impérieuse la tey circonstance impéri imprévisible mooy tey Covid 19 kenn mosu koo xalaat kenn mosu xalaat ne dinañ am co dinañ am dinañ am nit ñi dañoo feebar. Mm-hmm. donc déjà code marché bu ñu nekkoon ci état kii code marché may na ko ci article soixante seize ñu dellu si waat ci loolu deux mille deux mille vingt sept cent quatre vingt un portant dérogation tey bu may pour président de la république pouvoir tey muy lan muy muy muy muy dem muy gérer dëkk bi par ordonnance mayoon na leen entente directe mais loolu yëpp defuñu ko. ñu pour leeral ñu def appel d'offre boo xam ne jàll na ci dans dans certains journaux bëgguma wax seen tur pour peut-être éviter publicité bi ci biir 53 personnes ñoo def appel d'offre ñoo ñoo ñoo def appel d'offre yi ci 53 ñu retenir ci 4 4 yoo xamante ne tey ñoom la ñu retenir ci prix boo xam ne ñoom ñoo joxe prix bu gën a moins cher te ñoom ñoo am ceeb te lu gën grave ci appel d'offre bi boo boo soumissionné ay wala amoo. Mm. donc je man tey loolu la ñu war loolu laa war tey la ñu war a def mooy ceeb bi ñu ñu mu destiné ñooñu nga xam ne tey ceeb bi ñoom la destiné ñu jox leen ko je pense que tey loolu moo war a gën a am solo. donc je que aussi tamit bu ñu lëndumal bi. Mhm. ceeb bi ceeb bi tamit na ñoo xam ne joxe nañ prix trois cent mille am na ñoo xam ne joxe nañ deux ñoo joxe deux cent soixante quinze ñoom mhm. pense que tey lu ñi dañu ne ay lu tax joxuñu ko diw lu tax jox mais appel d'offre bu ñu ko waxee c'est pour donner la à tout le monde. d'accord foog naa loolu euh, ministre bi sax dellusiwaat na ci ci loolu Pa Maguette yeewul nga wax ak moom. waaw monsieur monsieur sew maa ngi lay nuyu di la ziar di leen masawu coono euh, tey ñu ngi nekk ci situation comme ni mu ko waxee situation imprévisible la ñu nekk maanaam loo xam ni. kenn suuraale ko de jour en jour mu am looy xam da ngeen koy nas tey situation bi mi ngi xaw a nekk situation bu garaaw jaaxal na askan bi muy cas communautaire ba jaaxal le président de la république tey yan mbir ngeen nas pour mën a euh, gën a régler waat mbir bi wala boog gën ko wàññi ndax confinement total mënut a am. xam nga comme lu ko président waxee nee na mënuñoo confiner nit ñi totalement. Mm-hmm. mais lu ñu mën mooy jox nit ñi dund parce que léegi da ngay ne dañoo ne nañ tëj luuma yi wàññi daje yi mais est-ce que dinañ wax tëj leen marché yi wàññi daje yi joxaat ko xaalis muy dem ci marché tey lan mooy situation mooy jéem a distribuer aide alimentaire deuxième cas euh, euh, def couvre-feu troisième cas mooy comme masque yi ñu ko waxee peut-être avec l'État comme nu ma waxee soixante quatre virgule quatre milliards am na ay masques yoo xam c'est prévu mais il faut pas que ñu oublie aussi plus de masques parce que ñoom ils sont plus exposés léegi comme nu ma ko waxee man aussi tamit je suis spécial du président mais je suis président d'ASC j'habite à parce que les cas communautaires nous inquiètent au niveau de Yeumbeul mhm. qu'est-ce que nous ñun xam nañu xeexee tey cas communautaires yi tey tous les ASC yi nekk ci gox yi tey comme xam nañ ne bu bu Covid 19 jeexul nawetaan du am ñu ngi delluwaat nañ ci di fabriquer ay masques locales tey. koñ boo gis am na ASC kon dëkk boo gis am na ASC ñu delluwaat ci confection des marques locales en attendant tey crise bi di jeex. Ah, alors monsieur Sow ci lu jëm sax euh, ci masque yooyu dañu gis ne euh, gouvernement bi yéex na koo joxe bu baax a baax te ñu gis ne bu ngeen nekkee période euh, campagne électorale da ngeen di maye ay t-shirt ak yooyu te budget boobu moo gën a cher budget bu jëm ci masque yi. soxna si xam nga da ngay wax campagne électorale campagne électorale ku ci nekk politicien bu ñu nekk yaa ko di ko déroulé ci def ay du du budget état mais tey bu delluwaat ne euh, tey masque yi da xam ne tey aujourd'hui on parle de masque te ku wax masque wax personnel soignant mais soxna a combien de personnel soignant tey di nekk au devant de la scène tey je pense que priorité tey ñooñu la état bi def jox leen ay masques ñooñu d'abord te état bi mu ngi koy def mu acheminé dans les yoo xamante tey état bi moo war jël en charge muy soit la police la gendarmerie et tous ces gens là ñoom état bi mu ngi leen jox masque donc bu ñu delluwaat ci la politique politicienne xam ne état bi mu ngi def rôle ci ñoo xamante tey mu ngi leen jox masque muy tey les personnes les personnes mooy comme ni ko waxee mooy ñu nekk tey les personnels soignants la police la gendarmerie ñooñu ñëpp di exposer les militaires ñooñu état bi mu leen di jox ay masque di leen kii léegi nag comme ni ko a jox leen liggéeykat sa masque nit ku ne aussi tamit euh, fu nga dëkk sa gox bu nga dëkk ñi nekk ci gox yi tamit nañu yëngu fabriquer masque local yi promotion masque local ñu mën ko jënd may ko askan bi loolu aussi tamit c'est très important bu ñu jaawale aussi tamit lu bokk lu bokkul campagne électorale ku nekk nga leen dem campagne la mais tamit di lancer aussi un appel sama sama collègue politique sama mbokk politiciens yi comme ni nga waxee ni ñu doon yëngatu ci campagne électorale di jënd ay gerte nañ ci doo boole masque yi tamit gën ko jox population loolu aussi tamit euh, ñeex yi ñeex yàqul yàqul ci cere quoi. Mhm. bu fekkee ñeex bi bariwul. ah non ça dépend même bu bëree sax ko lekk. Mm. Mm. Ah, lu jëm ci wàllum ah, tamit euh, confinement ñu ngi koy xaw a njot lu jëmit ci wàllum couvre bi euh, président wàccee heure bi euh, def ko 18h ba 7h du matin est-ce nga yooyu te xalaat bu baax la ngir xeex propagation. feebar bi soxna si bu kii bi Covid dina bu ñëwee président dafa woo force vive de la nation yëpp kuje yëpp la woo ñëpp ne ko yow yaay président yaay jël mesure yow la ñu dénk bato bi. yow yaa xam nu jàngoro def ne jàngoro du fi jóge jox nañ la pouvoir yépp muy yaay buur yaay bu mu yaay def lu la neex mm-hmm. ci biir pouvoir yooyu ni ñu fexe rek ba ñun ñu wër nañu fexe ñun ba ñu lekk nañu fexe ba suñu courant bu mu coupé ba ceeb bu mu manqué ba diwlin bu mu manqué xam nga ñu dem dañ ko teg dañ ko jox pouvoir donc je pense que pouvoir boobu bu xoolee nécessaire que dañoo war tamit ci disturbe couvre-feu bi wàññiwaat ko je pense que moom dina ko def mm-hmm. comme lu ma koy waxee te tamit aussi sénégalais nañu bàyyi dëgër bopp bi sénégalais nañu xam ne feebar bi feebar bu ngi ci ñu biir te feebar bi ku ci nekk ci ñun mën nga ko yor te doo ko xam te mën nga ko wàll sa borom. Mhm. Ah, ah monsieur Sow. waaw ma ne benn laaj rek laa lay laaj boo xam ne dina dina xaw a kii ah, ban état d'esprit le président de la république nekkee boo ko xoolee ban état d'esprit la yore actuellement. man de je vois un président plus que déterminé aujourd'hui c'est vrai il est confiné mu di liggéey di di di gérer président bu ma gis. mooy président bu déterminé pour xeex crise te il est très optimiste comme nu ma ko waxee nee naa ko monsieur le président la bi xanaa lii da ko gisoon parce que bu ñu amee deuxième mandat ba léegi bu ngeen seetloo président mu ngi waxu wàññi au niveau de l' les dépenses publiques ont réduit à cent cinquante neuf milliards mooy lan dafa ñëw ne dagg naa téléphone sama membre cabinet dagg naa téléphone sama ministre yi dagg naa téléphone wàññi naa sama membre cabinet que pare nañu ñu wàññi location donc économie yooyu yëpp dafa mel ni Sénégal président da koo hmm. gisoon donc président dafa amoon vision ci loolu donc tey lii bu ñëwee mu ne salaire benn liggéeykat bu manqué au niveau de l' neewaat secteur privé bi dinaa leen accompagner ci deux cent milliards yoo xam ne dinaa ko teg ci banque yi pour ngeen mën a wax seen employé ñu fay leen tey seen salaire à soixante dix pour cent bu ñuy touché ku ñoo xam ne impact nañ donc je pense que état buy doxalee noonu yëpp état boo xam ne état rassurant la état boo xam ne tey te tamit comme nañ koy waxee xaalis bi mu ngi fi tegu xaalis bi loo xam ne dañ koy def jéggiwaane xaalis tegu na te xaalis déjà je pense que secteurs yi war a jot yëpp ñu ngi ci jot ba ci transport bi ba ci ah, yeneen ak ah. yeneen mm-hmm. di di une fois de plus encore na nit ñi respecter les mesures barrières tànk jël jël sa dàll sol ko takk ko jéem a xeexal cette maladie là parce que maladie boo xam ne tey gis nañu tey les person vulnérables surtout ñoo ñi ñi ñi dee ñëpp les cinq personnes maa leen jaale seen famille gis nañu ñu mag lañ ay mag lañu mais tamit du tere ne mag rek lay rey mais ça veut dire que mag moo gën a nekk moo moo gën a exposé wu ñu jël suñu mag ñi làq leen denc leen foo xamante ne tey bu bu génn mënut a ñàkk rek nañ leen denc ci aussi tamit surtout mag ñi ñu gën leen bu ñu war a génn ñu jox leen ay masque comme xale bu ñu mënta am mag ñi am mais gën a moytu gën a wax nit ñi ne feebar bi feebar boo xam ne ça fait ravage dans le monde tey te di ñaan yàlla yàlla mi buur di aussi tamit ñun aussi ay julli lañu moom rek la ñu mën a sàkku ñaan ko ne ko yàlla mi buur yàlla mi karim vraiment ci darajey weeru koor bi ñu ñëw yàlla nañu yàlla faxasal feebar bi yàlla na yàlla wëral ñu feebar bi yàlla na yàlla faxas feebar bi ba ku nekk ci Ah. alors euh, monsieur Sow lu jëmit euh, ci li nga xam ne moom mooy décision de justice yi président euh, daal di nuyu lal lu jëmoon rek ci loi boobu ñu jagleeloon wàllum location yi ak yooyu lan nga ñu ci mën a wax. waaw mais xam nga tey comme lu ma ko président joxe na ay directives mooy tey les locations joxe na ay. je pense que tey les autorités compétentes ñoo ko war a jéem a doxal ko et je pense que tey jusqu'à présent dégguñu benn bailleur boo xam ne tey génne na euh, ndax ndax ci yooyu noonu donc je pense que décision yi ñu ngi koy ñu bu baax a baax te aussi tamit comme ni mu ko waxee Sénégal est un pays boo xam ne y a la tolérance nit ñi aussi tamit ils sont très compréhensifs yaakaaruma tey jiixi jaaxa war na am ci mesure mm-hmm. euh, ñu ngi lay nuyu monsieur Sow bu baax ci disponibilité bi. merci beaucoup maa ngi